Yeah.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبين بإحسان إلى يوم الدين أيها المسلمون الكرام في ساعة راديو خسيد العين نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتم في برنامج في برنامج من حاج الآبدين إلى الجنة نقدمكم مصطفى عم عصام في الفن سرين نود بيتام أيد الله ونصر بكوري تيري رجع خسيد أونلاين دلوس نجمنا نيون كيسين إمسون بينيو تدي من حاج الآبدين إلى الجنة كيسين بكوسين خريط مصطفى عم عصام دي لنكو دفل ديماس دي نك ñeenti waxtu jotee fi ci Sénégal mbokk ñu nekk ci technique bi mooy Serigne Moudou Mbaye Thiam ginnaaw bi ñu leen jéggloo ci dimanche yu weesu xam ngeen ni ay rédivision rek ngeen doon jot lu ko waraloon du dara lu rek baat bi moo amoon ngant docteur yi ni naa ko noppal ndax wax ji day xaw a bari ak conférence yeeg boole ko émission yeeg ila axiri waaye du tee rek saa buñ yàlla defalee tawfiq rek ñu waxtaan incha allah kon nag ñu leen di ndokkeel di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di ñaan suñu borom rabbi si tuwa jàlla xew-xew bi nga xam ni xew na ci addina bi it yàlla musal leen ci yéen sénégal yi yoone yi nekk ci bitim réew fu ab sénégalais mën a nekk moo taxan sax bërki démb doon nañ wàcce kaamil fii ci daara ji ñaan yàlla képp ku di Sénégalais te nekk bitim réew yàlla musal la ci ay woowule ci tawat joojule waaye nag rawatina nag senegale yi nga xam ni dañoo amanteeg wëllëre daara Ihyaa Uloomu Diin ñoom ñëpp dëxañ nañ leen ci biir ñaan nga yàlla aar leen te musal leen ci suñ borom mën na ko wama salik alalay bi tey nag ñu bëgg a waxtaane xàqu saw ji ala saw jatihi droit yi nga xam ni soxna su nekk amel na ko borom këram xàqu saw ji ala saw jatihi droit yi nga xam ni soxna su nekk amel na ko borom këram te bu fekkente ni droit yooyu mataliwu ko yow man xiyaam balaa jig gisraat borom na ko taaj laaj ko ko lu ko waral moy xam ngeen ni ñu ngi dëgmal bisu soxna jaaratullahi maryaama buso radiyallahu taala anha te xam ngeen ni mom bisam bu ñewé dañ ko daan defal hadiya waxtaan ci mom waxtaan ci jaar jaaram waxtaane siram dina ah, waxtaan nañ ko miraaran waxtaane jaar jaar soxna jaar ñu ni kon waxtaan nañ ko jël jëme ko ci jigéen waye nak ñu jël ben tombu muy droit yi nga xam soxna su nekk amel na borom këram incha allah bu nu ko yàlla mayee daañu fi indi beneen tomb boo xam ne moom day doon tomb boo xam ni mooy droit yi nga xam ni borom kër moo ko ameel soxnaam waaye comme li arab di wax ni ni kulli makkaan ma xaal <clears throat> béréb bu nekk ak lañ fa war a wax moo tax ñu ni kon nañ jëkkee xaqu sawji ala sawjitihi droit yi nga xam ni soxna su nekk amel na borom këram borom rabbi si wa jàlla jalaaluhu dafa bind addini bi ci nim ko soobee ci mbaaxam ci yërmandeem ci tabam ci lu ñu forcé ko ci dara mu njëkk a bind aadama alayhi salaam aadama alayhi salaam amul ndey amul baay nga bind na ko ëf moom ruu aadama toog lu yàgg gis ni yëg na wetu wetu xol te soxla na wéttalu xol ndax soxna xam ngeen ni bu melenam war mel wéttalu xol la aadama alayhi salaam bi muy xalaat loolu tëdd di nelaw borom rocc ci wetam dal di ciy bind jigéen muy xawa boole leen ñoom ñaar mu war a ànd kenn ku nekk amee sa moroom ay droit war ko respecté incha allah xëy na mu leer ci biir waxtaan wi borom rabbi su jàll daa wax ci alquran ni wala xunna mislu lasi alayhinna bil maaruf wali rijaali alayhinna darajatun wala azizun akim ca sóoratu baqara yàlla na jaadu na war na te man yàlla maa ko def ñu ni góor amel na droit ay soxnaam soxna it amel na droit borom këram mu ni ñun yàlla nag biñu defé lolu bu ba kenn ku ne amé sa morom ay droit bu noppi nak ñun yàlla dañuy jël ay privilège manam def na non ngeen ci waxe ci tubab ay sañ-sañ yeneeni dara jaat tek ko ci kaw manam tek ko ci loxol ku góor ki mu faw xaa ko mu tiime ko mu yilife ko ku jigen ki ni wallahi mom yàlla xasisun akim xasis moy kan moy ko xam ne nu mu def nonala te dara du ko ca fek xasis moy ko xam lépp moo not ñëpp te kenn ko moo yilif ñëpp te ilifu ko xasis moomu mu teg te ni man maay xakim boole ci mu mbir mi nga xam ne moom laa doxale nii te mooy jël li ñuy tuddee pouvoir te ko ci loxol góor mu yilife ko jigéen man yàlla xakim laa def gi ma ko def lambatuuma ko doonut loo xam ne dama koy def ba noppi di ko rëcc ni doom li dal doomu aadama من الرجال خوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم من يالا نيو جيل اوتوريتي كير تكو سي لوخال بوروم كير موي كو غوركي نيم يالا نيو جيل اوتوريتي كير تكو سي لوخال جيكير تكو سي لوخال بوروم كير مو يرا اوتوريتي دي جوخي اي نديغال نيي ديف دي جوخي اي تري نيي باي من من يالا ماكو ديف ما جيل ngëneel ci ku góor ki teg ci kaw ku jigéen ki li nga xamee ne bépp mbooloo moo dem lu dañ mukk suñ borom di jël aw nit ñuy yilif aw nit lu dañ mukk di jël aw nit ñuy doon kilifa yi ñu ci des bi ma fadala baadum ala yàlla ñoo tracé addina bi ni ñii dañuy doon kilifa yi ñii doon kilifa ñii ba fàww ci biir loolu yàlla tracé ni faw dana du ñàkk mukk ñii doon kilifa yi ñii ci laa defee góor muy kilifa ak jigéen rijaalu xawaamuuna ala nisaa lu tax mu ne bi maa fadala baadum ala baadi lu tax mu ne bi maa anfaqoo min amwaalihim ñun ndax góor li tax mu am kilifteefu ci soxnaam sañ ko ni defal baal bul dem demal ñu bokk na ca ñun yàlla li ñu tudde can góor a ko war a joxe ak lu mu tuuti tuuti ak nu mu mën a demee li ñuy tuddee dëkkal ak dëkkoo góor la war te loolu lépp ala la koy def loolu looloo tax man yàlla léegi nag buñ wax mukk ni jamono indi na benn situation góor jigéen mën a am alal mën a yor boppam mën a mën a mën a waaye du tax mukk yooyu dara war ko ca lu ci ni da koo def ci coobareem rek bu ko defee am tuyaaba waaye bu ko bàyyee du am bakkaar kon nag loolu du lay yàlla nee na li tax ma jël pouvoir bi teg ci loxol ku góor ki man yàlla man maa décrété ku góor ki war a joxe can ma décrété ku góor ki war a joxe dépasse ma décrété ku góor ki mu war a dëkkal kon nag kàddu kilifteefam nañ ko ko bàyyee ñu dem nag ba suñu jamono bii droit de l'homiste yi ak femme féministe mi wala femme féministe ni ñu koy waxee ñoom dal di dikk ci diggante góor ak maanaam jabar ak jëkkër jabulise leen rambaaje leen jaxase leen ba ñuy tibbante tànk di rayante di deman ci tribunal ñu ngi tax ñu nu yow ku jigéen ki comme léegi mënal nga sa bopp waratu la am kilifa comme léegi mën nga boo bëggee dara mën ngaa wax jëndale ko sa bopp loo bëgg a def mën nga ko bopp am nga kër ni ko góor ame am nga oto ni amee am nga nangam ni ko góor amee kon kenn waratu laa yilif te fekk lu ñu wax loolu dara bu ci dëgg maanaam bëgg a yàq addina bi rek moo tax ñu def ko ndax même ñoom buñ ko bañee ci sariya ndax ñu naan sariya def leen a punir yéen jigéen ñi ba tax mu naan na leen góor ñi li fa leen a dem te tàggoowu leen ak suñ leen tere di ngeen a war a toog moom buñ ko bañee ci sariya nangu nañ ko ci logique nangu nañ ko ci logique alquran lu mu wax suñ borom dani law kaana fihima aliatun ila llahu la fasadata loolu la suñ borom wax suñ borom nee na bépp société boo dem fekk fa ñaari directeur la fasadata société bi day fayit ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا نيب ريو مودم فك فا نياري بريزيدان مونا موني ريو ما تي اكراسي لا جيم ريو ما داي فايت ريو ما داي سوخ داني رايانت ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا بيب خلافة غودم فك فا نياري خليفة مونا موني خلافة داي فايت با لو تخ ني نانغوني سوسيتي ورتا ام نياري ديريكتور بن لا يام muy joxe ay directive ñu di ko topp muy joxe ay ndigal ñuy def ñu joxe ay tere ñuy bay ñu nangul ko directeur bi lan moo tax ñu nangu ni réew mu benn président lay am mooy joxe ay ndigal ñuy topp mooy signé décret yi mooy mooy ñu nangul ko ko léegi lan moo tax ñu ne euh, bépp bërëb boo dem ka fa nekk xalifa moom mooy joxe ndigal yi ñuy def ñuy tere ñuy bay ah ñu nangul ko ñooñu ñu nag léegi boroom kër moom kenn du ko ko nangul ci këram moom ak ay soxnaan loolu nañ ma wax fuñ ko teg nañ ma wax fuñ ko teg du dara kon nag daañu gis ni yooyu ñuy wax ñoom femme féministe nii coppet ci biir ndong ci biir rek la mooy jaxase diggante jëkkër ak jabar ñu tibbantey tànk di deman ci tribunal ak ñëw ci yaama war a yilifa waruma laa yilif te ñoo mani lii ñu li ñu autorité parentale autorité parentale Seex may tuuti ba ma noppi gis ni kon loolu nga xam ni moom la suñ borom wax ci bind jaam ñi moom leen mooy li war a am léegi nag ku topp femme intellectuelle yi wala nga topp droit de l'hommiste yi ba tax nanguwulaa accepté loolu ne wóor ni bala ngaa ji gis raat daa ko layoog suñu borom te foofa de droit de l'hommiste yi nekkuñu fa de femme féministe yi seen loxo yëggu fa de bokk na ci nag xaq yi nga xam ni soxna ameel na ko boroom këram mooy saa bu ko borom këram soxla ca kaw lal ba mu wuyu hadis ba nee na sayidna abi urayra moo ko soloo radiallahu taala anhu mu ne sallallahu alayhi wa na daa rajulu imraatuhu ila firaasihi fa abat fa baata qadabaani alayha lanataha almalaayika ata tusbi'a rawaahu buxaari sallallahu alayhi wa sallam nee na jigéen bokk na ci droit yi mu amel borom këram su ko nee dama laa soxla ci lal bi uritaa teg baat mu ni bu ko dama laa soxla ci lal bi mu ni ko tey awma li ñu tuddee ambition wala bokk awma maanaam awma envie wala nga ne ko tey dama sonn dama fatigué mu ni na la wóor ni day malaaka yëpp daañu wàcc nan la yàlla na nga dee dem safara yàlla na nga dee ci lakku xorom yàlla booy yeewwaale bakkan loolu la malaaka yi di ñaanal am rëbb ba keroog asamaan di set ci bi la sa borom kër soxlaa ca kawlal ba nga ni ko tey aw ma envie wala tey dama sonn dem nañ sax ba gis ni femme féministe mi ak droit de l'homme yi nee nañ sa soxna saa boo ko ni dama laa soxla mun la tey dem aw ma envie wala dama sonn nga force ko ànd ak moom su keroogee am na droit porte sa plante ni da nga koo violé inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sallallahu alayhi wa sallam nee na jigéen saa bu ko borom këram soxlaa ci kawlal bi te lenn nganti sari a wëralu luy tax mu bañ saa bu bañee malaaka yaa ngi koy muulu naan ko yàlla boo yellu yewwaale bakkan yàlla na nga dee dem safara ba keroog asamaan di set mu des nag xanaa ba des rek fekk booba sa boroom kër dafa amee tawat comme feebar bi xew léegi muy li ñu tuddee sida nga xam ne am na sida ñëpp yow amuloo ko mu bëgg la koo wàll kooku bu la wooyee ci lal ba am nga droit bañ lu tax alquran moo ko yaxal suñu borom nee na wala tulqoo bi ay aydikum ila tahluka wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin ma nga suuratu baqara suñu borom nee ne bu leen gis lu leen di rey ngeen di ci dugal samañ seen jëmm ji bu leen fekk lu leen di lor ngeen di ci dugal seen loxo comme nag bu fekkente ni moom dafa jëlee sida feneen ak lu ko mën a wàll bu fekkente ni yàlla dafa dogal mu woole ci kaw lal bi boobu am na droit bañ sari am moo la ko may bala la wàll lu mu xanaa mu def pexe yoo xam ne su ko defee duutu la ko wàll rek booboo ci njëkk beneen bi ci des mooy yow ci sa bopp yaa tawat yow soxna si boo tawatee na tawat yi <clears throat> ba tey bu la bëggee nga fekkoo ci lal bi te fekk tawat jooju soo àndeen moom ci lal bi tawat ji lay yokk wala tawat ji dana la gën a lor su ba tey am nga droit bañ ñaareel bi mooy ñetteel bi mooy nga gis baax bu fekkente ni dangaa gis baax léegi sa ngóogu la sa baax jeexagul ma noppi nag mom mu am ci bëgg jotté ak yow wala ñak samonté sharia tax mu bëgg jotté ak yow sharia nee na nga bañ ba fa bañ yem xana lu mu dem ba ëpp la doole forcé la rek lu lool rek te boba nak mom mooy yanu bakkar bi waye yow sa baat ni poto waye lu lool bo topé fam intellectuel yi wax naan bu la sa borom kër soxla fekk nga fatigué señ nga baña señ sañ bu la lié de la violé lool mom ëpp na xalaat alcorane daf ni nisaaukum arsun lakum fatu arsukum ana situm wa xaddimul anfusikum suratu bàqara ba léegi suñ borom nee na rabbi sitoo jàll seen soxna yi seeni tool lañu mu ni te boromu tool am na sañ-sañu dem ca toolam waxtu ko soobee seen soxna yi seeni tool lañu te borom boromu tool am na sañ-sañu dem ca toolam waxtu ko soobee moo xam yoor yor moo xam digg bëccëg moo xam takkusaan moo xam timis ñun fu mu doon rek fi waxtu waaw min kulli waxtu wu ne rek sa tool sañ nga koo seeti mais jigéen ñi seeni tool lañ am ngeen droit dikke leen ci num leen neexee lu dul xanaa borom déggin wu ñaaw woo xam ne bu suñ borom nee ne dikke leen seen soxna yi num leen neexee ñoom ñi nga xam ne dañoo yàqu ba egg ci bu yàqu daal di bëgg a joteeg seen soxna ci beneen bunt ba ca des nga xam ni mooy ba ñuy tuure dugub loolu dëgganut loolu dëgganut loolu dëgganut dañoo bëgg booy ji na nga ji ci tooba muy sax tooba muy sax nag ñëpp xam nañ ko foofa dong nga sañ a ànd sa soxna feneen fu dul foofu sañuloo ko waaye nag waxtu wa nga koy dikkee nag yoor yoor la digg bëccëg la loolu moom lislaam may na la ko amul maa muskila fii si dara nekku ci kon nag ginnaaw soxna yi seeni tool lañ waxtu wu leen neexee sañ ngeen leen a dikkee ah soxna si kon amul droit boroom këram soxna soxla ko mu naan ko damaa fatigué tey dama sonn nag par ci par là tax mooy yàlla da ko sant mu fegu moom borom kër bi te waxtu wa ko xañee sa bopp loola mën na ko pousser ba mu defi leneen bam mu defi leneen bu boobaa di boole ñaar gàddu bàkkaar malaaka di la rëbb moom it nag dana ci am bakkaar ndax loolu waru ko woon waru ko woon ginnaaw yàlla may na ko man mën a am ba ñeen kon daa war a wuti ñeent ndax wolof njaay nee na bu mbul bañee làmbay nangu bu mbul bañee rek làmbay nangu dafa man jigéen ju baax ju ñuy wax umu sulayma umu sulayma ci saxaaba yaat yi la bokkoon doonu nit baax yàlla dafa dogal mu am benn milliardaire bu ñuy tuddee talxata booba duggagul ci lislaam mu ñëw di ko labat si bu ñëwee umu umu suleyma umm ni ko man duma sa nawle demal seeti sa nawle wala boo nga bàyyi ba nekk sama nawle doo a ñëw labat si ma ah, lu tax duma sa nawle mu nekk yow doo jullit te man jigéenu jullit laa mu ne ko xanaa xamoo ne man maay minti milliardaire bi ngay dégg ci Madina Munawara maay minti milliardaire bi ngay dégg ci Sénégal mu ne xam naa ko xam naa ni jeexaloo dara waaye doo sama nawle man alal fëkkuma sama diine ma gënal alal bi nga xam ne loolu am na Abu Talxata dal di dem natt ay wàttoom gis ni daal bëgg na Umu Sulayma mbëggeel goo ne daal mënu koo ñàkk mu daal di tuub dugg ci lislaam <clears throat> bi mu duggee ci lislaam matal ngëmam ñëw labat si ko Umu Sulayma ne ko léegi kay sama nawle nga d'accord naa ñu daal di ko koy may ñu ko ko mayee mu ni ko lu ma lay joxu can mu ni ko tuub gi tuub dugg ci lislaam def naa ko muy sama can sama digg ak yow yàlla dogale ñu sëy ba am doom ñu amee doom ba doom ji màgg wara toll ci ay fukki at doom ji tawat fekk umu solayma moom de d'affaires la kii abo euh, abo talxata homme d'affaires la boo xam ni day dem Dubaay ak ñëw ci misaal suñu jamono ji léegi nag bi doom ji tawatee Abu Talxata waroon na dem Dubaay pour jëndi marchandise mu ni kon damay fomm ba doom ji wér mu Sulayma mi soxnaam ni ko déet sa fomm ak dem nekkul ci wérug xale bi wérug xale bi nekku ci demal rek man mi fi def dinaa ko toppatoo mu dal dem voyage mu demee voyage dogal xalel bi tawat ja yokk faatu gannaawam bi xalel bi faatoo ki nga xam ne mooy ummu Sulayma sang xale bi denc ko Abu Talxa daal di dem mu waxtu timis ci dëkk bi ñëwee daal di nuyoo soxnaam fay ko fekk xalel bi faatu na ba Ummu Sulayma sang ko ba denc ko maanaam denc ko fi barab dugal ko ci benn néeg rek daal di tëj mi nga xamante ni nag borom këram boobu ñëw na di Abu Talxa mu ne ko waaw ana diw mu ne ko diw mi ngi sant yàlla tane na bu baax daal di koy may ndox mu naan tamal ndox mu sangu jox mu reer. mu ni tekk di ko déglu ba xam daal di waaj wàccaay ba xam ndax dana ko soxla ci guddi gi wala déet far yàlla dogal Abu Talha daal di soxla ummu euh, Sulayma ci guddi gi mu daal ànd wéet ci lal ñoom ñaar bi nga xam ne nag asamaan set na ba mu sang mu jox ko ndékki bu noppi mu ne ko ñu waxtaan tuuti mu ne ko sa gannaaw kat dafa am lu fi xew mu ne ko looloon la mu ne ko gis nga sama dëkkandoo bii dafa am ku ko abaloon euh, ab caqam léegi nag bi mu ko abalee caq bi ah, mu ñëw di ko jël si yàgg ko caq bi yàgg ci dëkkandoo bi tax na dëkkandoo bi defe ni moom moom caq bi nanguwu ko ko delloo waa koñ bi wax nañ wax wax wax mu ni du ko delloo caq bi Abu Talha ni waaw xanaa kii dafa dof yàgg ci géej du ko tax a doon euh, jësi xanaa moom dafa dof na joxe caqub jàmbur bi mu ni ko waaw kay gis nga suñ doom ji ñu yàlla abaloon maag yow mu naa mu ni jël na ko biig jël na ko biig lan mu ne kañ mu ni ko ca takkusaan mu ne ko mu jël ko ca tàkkusaan ma ñëw dippi timis waxoo ma ko ba nëgëni mu ne ko ah damaa xamul woon ndax danga ma soxla ci guddi gi wala déet te su ma la ko waxee man na maa yàq sa guddi loola tax waxuma la ko ah bu ma waxee rek abootal xasat an ni ñokket waaxu wuti kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu demee ne yow Mustafa alayhi salaam sama lim ma def Umu Sulayma la def mu ni moom daal dama ko bàyyi sama doom ji tawat ba ma tukkee ba ñëw mu faatu depuis takkusaan man maa nga ñëw fi timis waxuma ko mu bàyyi ba asamaan seen mu koy doog a wax sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw ndax seen guddi biig yéen ñaar jote ngeen dara mu ni waaw mu ngi koy na ma boppam sax ba ba jote nañ dara sallallahu alayhi wasallam ne ko ah seen guddi googu yàlla na ko yàlla barkeel seen guddi googu yàlla na ko yàlla barkeel seen guddi googu yàlla na ko yàlla barkeel ndekete ca guddi googa sulayma ëmbaat gis nga ñaanu yonent bi sallallahu alayhi wasallam gim leen ñaal xam nga lu mu leen jural yàlla wërsëgal ne leen fukki doom yoo xam ni ñoom ñëpp ay afisul quran lañ xanaa foofu la barkeel mën a yem ci guddi googu rek yàlla wërsëgal ne leen fukki doom yoo xam ni ñoom ñëpp ay xafisul quran lañ nga xam ne moom xoolal effort bi mu def ngir xamul ndax borom këram dana ko soxla ci guddi gi wala déet te bëgg te wax borom këram lu koy yàqal guddeem googu le bëgg ko ko ngaan dafa bàyyi ba asamaan set wute naag jigéenu jamono sa borom kër day wàcc day xëy mu indi facture courant bi gannaawam indi facture ndox mi gannaawam saako ceeb bi jeex gannaawam gaas bi jeex gannaawam mu wàcc si meeku sangu ah nga ne ko ko tuy ni ko gaas ba jeex na ceeb ba jeex na facture ba ñëw na lum naroon ci guddi googu dana ko bàyyi lum naron ndax li jël na xel mi num koy lijjanteeg num koy fayee suba ila axirihi ila axirihi fekk lu waron mooy bàyyi ba suba suba bala xëy nga xibaar ko ko kon nag bokk na ci droit yi nga ameel sa borom kër yow soxna si mooy waxtu la soxlaa nga wuy si ko ci lim la soxla boo xoolee bu yàggutoo njaay ñun suñu waajur yi ñun ñi rek damaa jëlee sax ay soxna jaara ñoom ak yooyu waaye ñun ñi di wax a ak yéen ñii suñu waajur yi bu yàggutoo njaay ñoom dañ daan jox seeni borom kër seeni droit ba mu jeex te duñ laaj seen dawaar maanaam dañ daan def seeni dawaar ba mu jeex te duñ laaj seeni droit laa a wax seeni dawaar lañ daan defal seeni borom kër ba mu jeex te mosuñoo laaj seeni droit loola tax ñu jur ay borom yi xam-xam loola tax ñu jur ay wàlliw loola tax ñu tax ñu jur bo gisee ñoom ñu mën a am doomi borom xam-xam doomi wëliw lu ko waral mooy dañoo joxe woon dañoo defoon seen dawaar ba mat te mosuñoo laaj seeni droit suñu waajur yi seeni borom kër luñ daan def bay bu nu bayee ba nawet bi jeex te kat mbay mi sax ñook suñu waajur yi jigéen ñee koy bokk dañuy dem tool ni ñoom waaye gis nga bu nawet bi jeexee bañ roñ dugub de dugal ca sàq ma daal di rabbu ab jànk teg ca ba mu tawum ndox bu ñëwee ci kër gi xam lu ñu wax soxna see sàq mangoog yaa ci des seen yoon ci keccax bay dem te ñeex ma seen yoon ci gerte gay dem te ñeex ma seen ci ñebbe day dem te ñeex ma ñoom daal sàq mangoog pare nañ ci waajuru jigéen wi mooy bojji mooy soq mooy wal booba ma suñu mbojj amul ma suñu wal amul machine soq amul lépp waajuru jigéen wee ko daan def man loolu moom man mii di wax ak yéen dama koo dund ndax man mii di wax ak yéen yàlla mi ma tiim xam na ni sama waajuru jigéen benn doom bu jigéen la ko yàlla wërsëgal te daanaka bam fereem soow la ko si Abdoul Ahad Mbacké jël si woon yónni bàcc gi mu ñëw jël si ko mu eh, jox ko waajuru sëñ Moustapha eh, sëñ Moustapha Saliou moo ko yoroon di ko yar foofa ba yàgg eh, mu jële ko ci loxoom ñu teg ko ci loxoy soxna Njuuba Jaxate jigéen kooku rek la amoon ci ku ku jigéen looloo tax man mii di wax ak yéen yow naa fajar soqal ko ba tàyyi yow naa fajar walal ko ba tàyyi taxanil naa ko ba tàyyi ndax ñoom ñoo daan soq ñoo daan wal lépp ñoo ko daan defal seen bopp te seen droit yi dox seen diggante seen borom kër yi fonk ñu ci dara dawaar yëpp la def te duñ laaj benn droit moo tax ñu mën a am ay doomi borom xam-xam ay doomi wàlliw ila axiri ila axirihi جيري نانتي محاس بن جبل رضي الله تعالى عنه من يونت بي صلى الله عليه نينا لا تؤسي امراه سوجها في الدنيا الى خالت سوجته من عور العين لا تؤسيه غات لك الله فانما هو عندك فانما هو عندك فانما هو إنك داخل يوسك ان يخ ان يفارقك الينا او كما قال عليه الصلاه والسلام